waatee turu yaayu nabu si la ñuy wax donc bàyyi tam fi ni waxee yeen ku si bëgg a wax si yeen ñi yéenay xool bàyyi tam lan bàyyi bismillahi rahmaani rahim bon na leen def ñaan ñu def fatiha ak salatul fatiha yàlla may ñu ubbee mbir mi si bismillahi rahmaani rahim te ñaan yàlla defal ñu ndam si alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi tàmbali mbir mi bon li nuy jëkkee mooy ñoo ngi gërëm ku nekk

mouvement jàppale Abdoulaye Diouf saar mouvement bii di jàppale Abdoulaye Diouf Sarr nag dafay doon mouvement boo xam ne day jàppale aussi le président Macky Sall moo tax pour les l'instant tur bi nga xam ne moom lañ adopté mooy mouvement jàppale Abdoulaye Diouf Sarr dooleel le président Macky pour un deuxième mandat ñan ñoo koy def ñii nga xam ne ñoo teew tey fii ci salle bi ñoo tàmbali mouvement bi depuis lors ñoo ngi ciy liggéey ay weer a ngi nii yàlla tey comme dañ doon def rek pour jàllale mbir mi si télé yoof bi nga xam ne moo tudd yoofu mbooloo TV li yàlla dogal mooy buñ ko lancé mooy pour wane ne ñëpp mënuñu teew ba su tey bi mais c'est uniquement pour miniaturiser mbir mi am ñu teew mën a xàmmee ñan ñoo taxawu combat bi nga xam ne mu leen duggalee jàppale Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Diouf saar nag jàppale ko daf ñu war lii tax mu war ñu mooy Abdoulaye Diouf Sarr sincèrement no seulement doomu yoof la mais taxaw na taxawaay bu rafet Abdoulaye Diouf saar ku ne xam na ne yéeneem si yoof sincèrement yaatu na yii mu commencé yëpp gis nañ ne yëpp yàlla dogal na chantier yi moo ngi en donc ñun ñi nga xam ne ñoo teew tey ci saal bi bëgg a porté wu le combat mooy Abdoulaye Diouf Sarr dañ koy ñaanal yàlla taxawu ay mbiram ni mu yéenee si Yoff tamit yàlla yeggale yéeneem yëpp objectif bii nga xam ne moom lan am mooy gën a massifier jàppale Abdoulaye Diouf saar nan la ñuy massifier mooy képp koo xam ne yaa ngi doon jàppale Abdoulaye Diouf saar ba tey ñoo ngi leen di gërëm ñoom ñëpp ndax Abdoulaye Diouf saar yàgg na bëgg teew si Yoff pour gërëm ñëpp yàlla dogalagul mënagul loolu parce que li muy chargé managul taxaw taxawaay boobu waaye wax na ne janvier bu soobee yàlla dina jéem pour quartier yëpp mu teew fa ah tout les cités nouvelles dafay déparé terme nord ba jàmmalaay toutes les cités nouvelles confondues ñong ci bir donc Abdoulaye Diouf Sarr liggéey biñ koy liggéeyal bi bëgg mu yaatu ba nga xam lepp luma amone dina doloku président Macky Sall yéene bu mu amone ci mom gën ko dolli ci mom wala Abdoulaye Diouf Sarr dañ bëgg andax mom moom tant que le président Macky Sall moo ngi fi dina andax mom ba foo nga xam fofu la mbir mi di yam yalla leen yalla kàntanal dëkk dooleel leen li nga xam mom lañ am mbëbët tamit yàlla jàppale ñu si nin ko bëggee nu mu gën a rafet sax donc li nuy bëgg daal insister si lool lool lool mooy di gërëm responsable yi di gërëm yoof ndax yoof gépp jàppale na Abdoulaye Diouf Sarr képp koo xamante ne yaa ngi yoof ñu ngi lay gërëm à travers Abdoulaye Diouf Sarr di gërëm tamit waa maire bi parce que ñun bi ñuy taxawal mouvement bi Abdou Naar la ñu booleel Abdou Naar aussi sincèrement jàpp na si lool donc ñi nga xamante ne tam ñoo ne si maire yépp di jàppale Abdoulaye Diouf Sarr ñu ngi leen di gërëm ak fu waay mën a nekk

dañuy wax ne ku ne responsable nga parce que ku boo jàppalee nit rek responsable nga donc képp ku fi nekk ñu ngi lay gërëm Adja Chinois ñu ngi lay jox kàddu gi. bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi nuyu waa Yoof ko dalee Darou Noor ba jàmmalaay képp ku fi nekk maa ngi ak sant di wax ne ñu dafa benn mouvement bu bees bu ñu taxawal pour jàppale Abdoulaye Diouf Sarr doole la président Macky Sall jàppale Abdoulaye Diouf Sarr boobu nag ñu si woo ñëpp parce que ku am nga droit bokk ci mouvement bi mouvement bi nag pour nga bokk si. da ngay joxe photocopie d'identité ak sa ñaari foto yu ndaw ñu adhéré la xam ne yow mii si mouvement bi nga bokk parce que ñu bëgg képp ku bokk ñu xam ne ñii si lañ bokk ñu si invité ñëpp nag ñu bëgg def tey ji lancement bi wala def journée bi le premier janvier incha allah ñu ñaan yàlla nag waaye yëpp na ñëpp génn ñu ngi invité ñëpp képp ku dégg lii ngay soppi chinois wala ngay xaritam maa ngi sa mooy sa convocation si programme bi maa ngi la siy woo di wax ne nañ gën a tab Yoff jàppal na Abdoulaye Diouf Sarr Diouf Sarr mënu fay waa mais ñun tamit dañu am lu jafe parce que dañu am ministre maire mu ministre ba nga xamante ne dafay jóge fii dem si kaw di jëli ji di indi si dëkk bi te loolu li ko may mooy ñun waaye fi ñoo ko tongam parce que nit ki boo ko tongam ba mu gis foo gisul yow mi ko tongam yow lay gërëm ndax yow yaa ngi ba mën a xool fu sori Abdoulaye Sane am googu tam lépp lu am yëf la koy indi ñu bëgg gën ko doole waaye jàppale woon nañ dañ bëgg gën ko doole ba nga xam ne lépp lu mu bëgg si kaw dina gën a yomb parce que président Macky Sall desal waayam dara fal na seen doom muy Abdoulaye Diouf Sarr ministre maire jàppale na ko trop parce que lépp lu mu xam ne bi muy cëram mu ko ñu mu koy delloo si Yoff ñu bëgg na jour bi incha allah bu ko yàlla bu ñu yàlla mayee ab euh, président Macky bëgg journée bi allah ñu ndokkal ko si bu baax a baax fii ko si parce que mu defal ñu doom ñun la ko defal ñun waa Yoff ndax Diouf Sarr mën na moom ministre Yoff Ngor Wakaam parce que doomu lébu la te lébu yi moom la ñu tiitaroo kon ñu gën a góor góorgóorlu gën a jàppale ministre ab Diouf Sarr ba lépp lu mu bëgg si kaw mu yomba mu andi ko parce que la mu ñu waxoon ba muy campagne naxuñu jàppal leen ma ma dem si kaw andi Yoff dëgg yàlla lu mu am yëpp mu ngi koy andi yoof kon de muy doom ju jàmbaar doom ju nangoo liggéey doom ju bëgg dëkkam nañ gën a jàppale parce que ñu gën a jàpp président gën ko dooleel fañ taxawoon démb ñun waa yoof nañ ko gën a yokk ju suñu doon suñu titre la ma bëgg na jigéen ñi loo xam ne dafa xew ñoom kenn nañ dëgg yàlla jigéen am nañ pëstef trop trop trop trop ma bëgg ñu gën a takkaa gën a dooleew gën a suudeew gën a nekk benn jàppale suñu doom suñu ministre Abdoulaye Diouf Sarr may woon na mouvement bi nag li ko dal demonoo ba jàmmale ko mu ko waxoon léegi rek foofu la ñu am nañ droit accès bokk si yëf yi na ñëpp ñoo bokk ñu àndal liggéey Abdoulaye Diouf Sarr li nga xam ne moo am si quartier dara du ci parce que quartier bu nekk am na responsable bu fay liggéey responsable boobu nag day liggéey liggéey ñu tam ñu ànd ak moom bokk liggéey bi liggéey pour liggéey bi gën a yomb si ministre Abdoulaye Diouf Sarr bu bu na di nuyu di leen sant di leen gërëm surtout waa Yoff bon ñun li sinuwaa daanale si Abdoulaye Diouf Sarr ñun amuñu ku dul Abdoulaye Diouf Sarr Diouf Sarr am tey moom la ñu am ëllëg te moment bi xam ne moo bëgg a taxawal li nga déppale terme ba jàmmalaay waaye yëf gépp lañ si oo na ñëw ñëpp bokk si ñu dooleel Diouf Sarr pour Macky am deuxième mandat loolu yaakaar naa pêcheurs sax ñoo si war a gën a sawar moo la ñoo si gën a sawar puisque président buy jël ay moteur di ko maye mosoo am comme Diouf Sandag jël na loolu def ko si mool yoo fax dëkk yi mool yi am si dëkk bi yëpp képp kuy mool di yëngu si géej wala sa yaay di yëngu si géej maanaam muy jënd di jaay li war mooy toppa sa ginnaaw doom dooleel Diouf Sarr puisque ñun mënuñoo bay liggéeyuñu si ay société géej la ñu am te comme Diouf Sarr dimbali ñu si si wàllu moteur. moteur bu war a jër un million quatre cent mille ñu ñëw mu fexee fexe ba ba mu la quatre cent mille francs dégg la un million yi waaye dama ne Diouf saar moo fi suut li mu man kenn mënu ka yéen ñi xam ne nag moom ngeen a liggéeyal ñun ñi ngi àndaa yéen benn demee si Diouf Sarr ne leen que moo li yoofi yëpp peseer yëpp baana baana yee yëpp ñu ngi àndaa moom que tamit Diouf Sarr wane na loo xam ne nii ñun war nañu suma ku jàppale ka comme lii kii wax nag ne ñu ngi pare ñu ngi bëgg a def première lancement bi Tongoor si côté pharmacie bi Tongoor 21 côté pharmacie bi bu ñu si yàlla yóbboon na ñëpp solu dem fekki affaire boobu puisque tamit réew mi Diouf Sarr moo kaa doxal te ñun moom lañu àndal muy góor di jigéen mën de côté pêcheurs yi man foofu laay waxee képp koo xam ne ki pêcheur nga bëgg yëngatu si lii ñëwal nga wax ah man ñu ànd jàppale Diouf Sarr pour Macky am deuxième mandat ba. boo amee deuxième mandat moteur yi sax du du du si defete dara da nga joxe gratuit ñun ñun loolu mooy suñu problème yàlla incha allah ba yàgg. bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli Seydina Muhammad di sant suñu ñaari waajur di gërëm ne waa Yoof gépp ndax bu ñu jogee ne mouvement lañuy ñuy def ñun Yoof gépp benn la te xaajalewuñu utuñu seen utuñu dara ndax ñun benn lañ kilifa yi nekk si Yoof gépp muy ndey ji réew. muy jaraaf muy saltige muy parent yëpp ñu ngi leen di oo képp ku dégg la première bii nii ñu war a def nii ñu ngi siy oo ñëpp di gërëm nag Ndeye Marème Gueye première deuxième adjoint au maire ndax sama yaayu bopp la muy gërëm tamit Abdou Naar Mbeng bu baax di gërëm tamit Ablaye Diouf Sarr yàlla yàlla na fi suñu borom saxal ba deuxième mandat bi ñëwaat. Mm-hmm. yéene nañ ko ko ñaanal nañ ko ko ndax moo tax ñun ñëpp ñuy bàyyi suñuy kër di ko topp. Mm-hmm. lii bu doon yëguñu si dara wala sentiruñ maire bi si dara dara lu mu def si yoof gi nii am jot kooku. Mm-hmm. di gërëm tamit particulièrement Seyas parce que si tuur mi kese lañ xamante te Seyas nekk ku oyof Seyas nekk ku baax nekk kuy jàppale dëkk bi. ndax bari na yoo xam ne ñu ngi am si dëkk bi kenn amul woon fitam di taxaw si télé di ko def da ngay xalaat loo koy fayee yii Seyas ñëw yombalal nit ñi lépp boo ko oowoon aji jaan keroog daf ko wax lu rafet ne boo oowoon séyaas sax billaahi mu ñëw te doo ko fay dara kon loolu noonu ku ko gërëmul doo nit séyaas yàlla la yàlla taxawal yeneen télé yàlla may la gu wér sa tur li ñu koy tudda bari na mais yàlla suñu borom jàppale si barka yonente bi di gërëm tamit Omar Ngalla miy toog nii ndax ku ñàkk ki ñaan la Omar Ngalla boo amee nit diggante sax da siy dox tànkab tubayam te yàggu ñoo xamante mat naa ne sax matul at mais Omar comme sa comme keroog mbokk sax dafa génn ba mu ne man di jaay la si man kon Omar yalla na la yalla taxaw yalla na la yàlla jàppaleel waa Tuumoor tamit ñu ngi gërëm ñepp di sant de ñu Mariam Silla di gërëm ñom Fane nga di kep ko xamne ne yow ya nga fa ñu ngi lay gërëm ñoom Sinwaa tam ñu ngi leen di bu baax di ñom tan may muna ñang li ne ku ko deg na melni ni jox nañ la soutien ci sab loxo ne la ñewal ñu ngi koy defee si booru pharmacie ci si koñ bi ku taxaw ci pharmacie mom to ngor mëno rir kep ku ko deg ñu ngi lay ñaan Ndëngaay ta mari ndjay ñepp ku ko deg ñëwal nga dimbali ñu rek nga ñëw nga taxaw nga xam ñun suñu objectif lan la joguñu pour xaaj ja kenn hmm. dañ bëgg lépp luy am yoof ñëpp di si yëg léegi seen bopp hmm. moo waral bu fekkee ku ne da nga toog nag di xaar sa kër ñu la fay fekk di la wax bu boobaa day mitti hmm. mais liñ def nii dañ bëgg yoof bu ñu ko tegee ñëpp gis si seen bopp ñu ngi gërëm ñëpp nag di sant ñëpp affaire bi nag lan la dañuy jox pour jàppale Diouf Sarr te jàppale Diouf Sarr mooy jàppale sa bopp maire bi ku fi amul salaire sax sa mag wala sa tante am na fi salaire kon loolu noonu mënuñu fekk ñëpp di leen jox mais comme nit ñaa ngi xëy fajar di liggéey di wàcce midi bay dem di am lu ñu taali ci seen kër ak di sutur la loolu sant suñu borom la kii bu ñu ko fi teggee xam nga kan lañ fiy teg te kuñ fiy war a teg sax doo gëw ma nga mel ni moom ndax génn na gu yaatu yàlla du ko may ñaari kenn la koy may muy Diouf Sarr Diouf Sarr ko yàlla jàppale Abdou Naar nag sama doom ndey la Abdou Naar lu muy yéewtu si maire bi borom gën a yokk su naree ñaaw ba nare a ñaaw yàlla na fi toog ni guy yàlla man na yàlla na ko yàlla def tongoor ba tóngóor jeex nag ñëpp lañ oo xam naa ne duñ fa xaj mais oo nañ ñëpp te buñ jógee dinañ jogaat suñu tànk dugg nañ fépp nag mais dinañ duggaat si xale yi ñëpp ñëpp gën xam yàlla nañu yàlla jàppale yàlla taxawuñu si barki alxuraanu karim wasalaam kontaan na day jël ba ji defe naa maa ngi nuyu mbooloo mi di gërëm ku nekk si turam ak santam ah lii ñu tax a jóg tey nag mooy dafa am mouvement bu ñu bëgg a samp mouvement bi nag lii ko tax a jóg mooy jàppale Abdoulaye Diouf Sarr naam sax yàgg nañ ko jàppale mais jàppale bi dadul jeex ndax Abdoulaye Diouf saar damay faral di wax ne chaque jour c'est un commencement donc fu ñuy tàmbalee tey muy mouvement bii nga xam ne moom la ñuy créer nii di mouvement jàppale Abdoulaye Diouf saar doole le président Macky Sall pour un deuxième mandat dañ siy invité ñëpp yàlla dogal na Abdoulaye Diouf saar mooy Moustapha Ndir vraiment Moustapha Ndir. doomu ndeyam la sunu frère la sunu léb la yàlla dogal na moo Moustapha Ndir ñoo ngi ànd ànd bu rafet yàlla bu si ca dugg bu nu weesoo si Moustapha Ndir ñuy gën a tëm Adja Ndeye ndax dëggantaan jàpp leen Abdoulaye Diouf saar ba yàlla dogal li mu dogal si moom cër bii mu am yàlla na ko jig yàlla na ko muurloo bon waa Yoff ñu ngi leen di invité dafa am mouvement bu ñuy lancé le premier janvier à Tongoor Tongoor nag fa lañ ko sose pour mu am départ ndax yàlla dogal na yoof loo fiy sos tóngóor mooy bopp bi donc bopp boobu nag fa lan ko defee mais affaire bi faible ëmb day commencé terme nord ba jàmmalaay lu waral terme nord ba jàmmalaay mooy Abdoulaye Diouf Sarr yàlla dogal na moo nekk ministre de la santé et de l'action sociale mais c'est le maire de Yoff maire Yoff boobu nag mooy jëwriñ bi nga xam ne moo ko waafee dëkk bi yàlla dogal Adja Chinois sànq wax na ko wax bu rafet la mu ne Abdoulaye Diouf Sarr waxul ne meeru yoof la mais meeru lébu yi la bon de comme yàlla dogal ne lébu gi moom la fi am dañ koy tiitaroo ndax olof yi dañuy wax ne benn bëñkat si gémmañ ku ko am ko ne war naa mën a set ab laa Sarr nag bon dañuy ñaan yàlla jàppalal ñu ko bu baax dëggantaan dëgg war naa nañu gis ndax Abdoulaye Diouf Sarr sincèrement yéeneem si yoof ko ne xam na ne dañuy ñaan yàlla eggale ko ndax mébétam yaatu na lépp lu fi woon chantier si yoof yàlla dogal na moo ngi koy taxaw bu baax ku ne gis na quai bi ku ne gis na mosquée bi ku ne gis na yi nga xam ne moo fi xew ab laa Diouf Sarr woon dañ koy dañ koy ñaanal yàlla lafal ko cet te gunge ko si mission bi que président Macky Sall dénk bon nag buñ gërëmee ab laa Diouf Sarr gërëm ñi nga xam ne ñëpp ñoo ànd ak moom ñu gërëm waa Yoof parce que Yoof laa Diouf Sarr dafa ñaanal dafa ñaanoon yàlla bépp quartier ak cité nouvelle yi mu dem teew fa gërëm leen ndax élection yi ñu génne sincèrement victoire bi nga xam ne moom la Macky Sall am ku ne xam ne ne Yoof moo ko liggéey ndax li nga xam ne moo basculé ba Macky Sall mën a am li mu am Abdoulaye Diouf Sarr moo ko liggéey bon nag Abdoulaye Diouf Sarr gàcce gaaraama foofu damay bëgg ñu tàcc ko ma doog a continuer waaw boo nag merci beaucoup donc ku ne xam ne ne tey bu Macky tiitaroo député yi mu yor Abdoulaye Diouf saar moo ko liggéey si kantanu yàlla bon nag Abdoulaye Diouf Sarr ñun mouvement bi nu koy jàppale dañ ciy invité tout yoof yoof ñoo ngi leen di ñaan ni que kii waxee léegi maam jaara nañ ñëpp ñëw xam ne tamit mënuñu teew fépp mais suñu yéenee mooy ku nañu gis la buñ sañoon buñ tëj kër bu ne nañ fa dugg bàyyiwu ñu nag parce que dañu continuer liggéey bi mais bëgg leen tout yoof vraiment jàppale laa Diouf saar ba nga xam ne Macky Sall dina xam ne Abdoulaye Diouf Sarr yoof 100 pour cent la fiy am à partir de maintenant day gën a yokk mais du wàññeeku boo nag ñoo ngi ñaanal ñëpp di ñaanal képp koo xamante ne responsable nga te di jàppale Abdoulaye Diouf Sarr commencé par Abdou Naar nga xam ne moo yor yoof commencé ak képp koo xamante ne yaa ngi ci commune bi ñi nga xam ne ñëpp ñoo koy accompagner ñoomin euh, adjoint au maire yi ñoomin njàmbe di wane ne liggéey bi yaatu na ñi ne ci maire bi tamit bu def bëccëg ñoom Abdou Naar ñoomin Dibas ñoom Amitop ñëpp ñoo ngi leen di wax ne nañ gën a góorgóorlu gën ko jàppale gis nañ seen liggéey yàlla yàlla barkeel lépp bon nag di gërëm tamit ñi ma àndal si fii tey parce que tey tamit buñ sañee taxaw nii di wax ñii ñoo ñu dooleel ñii teew fii ah ñi nga xam ne yàlla dogalul ñu mën a ñëw tey di wax ne képp ku si jàpp ñoo ngi lay ñaanal kat suñu borom li nga xamante ne moom leen yéene yàlla na su yéene ëpp sax liñ leen yéene bon du ma zalika allah bi aziz boo ñoo ngi lay sant siyaas nag ñoo ngi lay gërëm parce siyaas ni ko soxla si waxee jar na gërëm parce que siyaas sincèrement tey yoof bu nu amee yoof mbooloo TV moom moo si jàpp ak ah, ñi koy jàppale techniciens yëpp toujours ma gis jigéen ñi di interroger vraiment da ngay gis seen liggéey muy këri diine yi lu xew ñu taxaw si ñoo ngi leen di gërëm suñu kàddu aussi ñoo ngi ñaan li nga xamante ne moom la ñuy ñaan ni yàlla yàlla def seen njort lu ëpp lii nga xam ne moom lañ leen yéene bon ngeen baal ma ax ma tëj foofu merci beaucoup